président de la république dugg na département euh, dugg na région de Matam euh, bi mu duggee région de Matam euh, région de Matam nag problème de d'enclavement amoon nañ ko waaye ci première phase bi nga xam ne démarré woon na ko ci wàllu mobilité maanaam ci wàllu infrastructure routière xam ngeen ni ku gis yoon bi jógee Touba dem Daara ku gis yoon bi jógee Daara dem Linguère ku gis yoon bi jógee Linguère ñëw Ourossogui ku gis yoon bi jógee Ourossogui dem Bakel xam na ni problème yi fuutanke yi doon am ci wàllu euh, mobilité ci wàllu transport problème boobu féete na ginnaaw parce que euh, naam euh, Ila Touba yoon bi nga xam ne mooy autoroute bi jógee Dakar ñëw tuubaa la waaye mun nañ ci toftal li nga xam ne moom la ñuy tuddee Ila Fouta boo jëlee yoonu Ila Touba bi ba nga dugg dans le département de Kanel ba nga dugg dans l' arrondissement or Orkadiéré ba nga dugg ci village de Orkadiéré ba génn euh, arrondissement bi amul fenn fu am nid de poule amul fenn fu am jafe-jafe donc loolu euh, nekk na euh, premier aspect bi nga xam ne président de la république defar na ko région de maatam maa ngi fàttaliku ci at yële ñu génn boo fanaanoo ñëw dans le département de Kanel. doo tëjbët bët doo mun a nelaw bu baax parce que da ngay xam ne le lendemain da ngay affronter yoon bu gën a metti muy yoon bi jóge wuru Ourossogui ba Bakel euh, loolu nag yaakaar naa ni journaliste yi euh, emprunté ngeen yoon boobu démb te macha allah yoon boobu nekk na yoon bu baax a baax a baax deuxième mbir mi xam nga Fuuta euh, dafa am lu ñu tuddee la jéeri et le waalo le waalo Euh, mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci wetu dex gi ñu am ay problème yu bëree baree baree baree bëri euh, pour seen déplacement euh, président la république ginnaaw bu mu defee la route du Dandemayo nord mu lancé travaux li nga xam ne moom mooy la route du Dandemayo sud Dandemayo sud bi mooy dafay régler définitivement lépp luy problème mobilité diggante ñi nekk jéeri ak diggante ñi nekk dans le Waalo mu toftal ci réaliser ñaari pont euh, benn pont bi muy pont Amadou Ounaré beneen pont bi muy pont Bossiyabé loolu yëpp dafay faciliter connexion entre le jéeri et le Waalo euh, mu dëgmal nag réaliser benn pont fii muy le pont de Orkadiéré ñëw compléter dispositif boobu euh, pour que mobilité bi gën a gën a ñoŋ mais président yemul foofu Euh, xam ngeen ni sur le plan de la santé président annoncé na dina tabax hôpital euh, régional de Matam à Ourossogui président envisagé na def aéroport Ourossogui donc euh, le dispositif il est complet sur le plan sanitaire xam nga boo réglee problème route da ngay régler problème sécurité parce que la sécurité routière n'a pas de prix le président de la République a réglé cette question de sécurité et de cette question de mobilité beneen mbir bi nga xam ne président réglé na ko euh, muy mu ngi waaja def na ay ay ENO ay euh, espace numérique ouvert euh, pour permettre aux étudiants foutanké d'étudier filière bu leen neex fekk ñu ngi ci seeni région fekk ñu ngi ci seeni département Euh, benn ci eno yi normalement fan yii di ñëw euh, bu nekk eno euh, de Orkadiéré dañ koy inauguré ina inauguré na eno de Bokki Diawé mu ngi lancé les travaux de l'ISEP de Matam président de la République am na yéene tabax l'université de Matam ak à Ourossogui pose def na pose premier incha allah dinañ def pose première pierre bi luñ lu yàggul président de la république nag jël na programme boo xam ne mu ngi tàmbale deux mille vingt et ba deux mille vingt euh, mu jagle région de maatam quarante cinq euh, quatre cent cinquante quatre cent cinquante milliards de francs CFA donc loolu bu fekkee ne yemb na euh, les problèmes de Matam seront derrière nous. violence bi dafa commencer jéggi dayoo le sénégalais il commence à apprendre la violence. depuis l'avènement de Sonko Sonko bi mu ñëwee ba léegi dafa commencé jàngal non du sànni xeer damay wax lii li nga xam ne moom la sénégalais yëpp di di xalaat Sonko bi mu ñëwee ba léegi li mu jàngal sénégalais yi la jeunesse sénégalaise mooy dem leen futteeku dem leen ngeen xeex dem leen ngeen lakk dem leen ngeen toj dem leen ngeen rey loolu mooy programme Ousmane Sonko programme boobu nag incha allah yàlla du ko bàyyi mu installé ko fii ci Sénégal parce que Sénégal réewu jàmm la nit mun na naxarlu euh, lépp lu mu bëgg naxarlu dans la paix euh, sans mu am violence mais boo demee ba jël kër président fi nga xam ne foofu la cosaano euh, ñu jël di ko lakk loolu ñaaw teef foofu la mun a yem waaye il y a des choses à ne pas il benn niveau boo xam ne waruñu ko franchir Euh, ak lu nit ñi am liberté liberté liberté il faut ñu xam ne aussi euh, nous sommes dans un pays de droit euh, ku nekk am nga droit manifester. kenn terewul encore une fois je pense que il y a une incompréhension kenn terewul nit mu xeex àqam ak yelleefam kenn terewul nit mu manifester. lu ñuy tere nit mooy la destriction des biens privés et des biens publics ku nekk dafa am ax ak yelleef ñi nga xam ne dañu am seen bien l'État a l'obligation et le devoir de les protéger ay sénégalais lañu comme ñoom suñu amee lu ñu naqar leen naqarit waruñu teg naqar ñi nga xam ne ñoom ñooy seeni moromu sénégalais yi boo ñëwee fi nga xam ne foofu la nit ki doon suturlu nga jël taal te nga jël safara taal ko nga jël li nga xam ne moom la sénégalais yëpp bokk ñu war ko ñu war ci jëfandikoo ku nekk war ci jouir nga ñëw yàq ko nga ñëw taal ko nekkuloo ci defar yaa ngi nekk ci beneen registre waaye registre boobu mënul prospérer parce que encore une fois ni ma ko waxee Sénégal réew jàmm la Sénégal réew euh, c'est une forte démocratie boo xam ne du léegi lañ koy imposer euh, fi may daanalee Euh, su fekkente ni euh, ponkal magum jëm euh, bàyyi na ba vingt heures vingt une dugg ci otoom waaxu dem fi nga xam ne kenn séentuwu woon foofu yàlla def ñu jàpp ko loxo ci biir saak yaakaar naa ne bu dee am na responsabilité dafa war setal deram dafa war a setal deram fu ñuy setalee der mooy fan mooy au niveau de la justice nga accepter dem au niveau de la justice nga confronté wu nga yàqamtiwu ko yàqamtiwu ko yàqamtiwu ko man maa la wax ne yàqamtiwu ko bu ko yàqamti woon buñ ko convoqué euh, c'est euh, kii bruit boobu mu def du ko def on a convoqué combien de personnes ñu ngi dem guddi ak bëccëg ñu ngi dem wuy yoon yoon dafa war def liggéeyam Ousmane Sonko n'est pas au-dessus des lois Ousmane Sonko est un Sénégalais comme nous tous donc su fekkente ne am na lu mu def na wuy yoon au lieu de sortir di woo nit ñi à l'insurrection di woo nit ñi ci ay fitna lakk leen rey leen dóor leen xaañ leen def leen lii def leen lii moi je pense que euh, démarche boobu jeunesse bi war nañ ko war nañ ci def taxaw seetlu Fouta Tampi euh, ce sont des activistes parce que il faut appeler le chat par son nom les activistes qui voient du noir partout activistes yi nag xam nañ ne euh, li leen war mooy ñu summeeku def politique comme ça les jeux vont devenir beaucoup plus clairs parce que su fekkente ni euh, li ma lim lépp président def na ko dans le Fouta fuuta foofti la war a wax si sont honnêtes avec eux-mêmes su fekkee ne réellement duñu ay nullistes Euh, problème Fouta soxal na leen euh, président bu réaliser autant d'infrastructures dans le Fouta euh, président bu am yéene bu mel ni li nga xam ne wax naa ko sànq ci Fouta président boobu du ay slogan Fouta tampiyeeg affaire yooyu moo ci war a moo moo moo ma ma ne ma ne les les on ne peut pas satisfaire tout le monde on ne peut pas satisfaire tout le monde su fekkee ne nag euh, satisfaction mooy l'intérêt général pas les intérêts yi nga xam ne euh, particulier lañu su fekkee ne intérêt général moo leen tax jóg président la république dañ ko war a sargal bu duggee dans la région de Matam su fekkee ne intérêt général la waaye xam nañ ne ce sont des politiciens ñi nga xam ne euh, seen ambition est euh, inversement proportionnel à leur capacité à diriger ce pays ñoom ñoo nekk seen ginnaaw di leen ruux di leen pousse euh, pour ñu wax naka sudul dul noonu. fii laa juddoo je suis natif de Orkadiéré fii laa yaroo fii laa jàngee école Orkadiéré c'est mon village natal Mbao. c'est ma commune d'adoption et au passage je salue la commune de Mbao di leen jaajëfal ci li nga xam ne ñu ngi may taxaw guddi ak bëccëg population de Mbao man awma seen pay man dama ñëw mbaaw kilifa yi téyel ma seen bopp jeunesse bi téyel ma seen bopp donc munuma fàtte Mbao ba ilaa yow mi diin foofu laa am kër foofu laa dëkk foofu laa dëkk ak sama njaboot comme sénégalais bu nekk am nga sañ-sañ am foo tànn ci bërëb bi nekk ci réew mi nga sànc fa sa kër man yàlla dafa def ma sàncee kër mbaaw di wax ne waa mbaaw awma seeni pay ginnaaw nag village bi mooy sama village nataal mbaaw nekk sama euh, fief d'adoption ñu adopté ma bu baax a baax a baax euh, je profite encore une fois de l'occasion pour remercier waa mbaaw euh, bu président waree gane si fii sama cër ak sama wareef mooy ma ñëw ànd ak si ànd naa fi am naa fi ay ànd jàmm am naa fi ay mbokk am naa fi ay xarit am naa fi ay soppe ñooñu ñëpp bu président la république war a gane si fii sama cër ak sama wareef c'est ma dajale leen pour ñu teertu président nu ñuy teertoo buur et effectivement démb orkajari yëpp génn na teertu nañu président la république nu ñuy teertoo buur Je profite de cette occasion pour féliciter et remercier toute la population de la commune de Orkagnéré, toute la communication, euh, toute la, euh, euh, euh la population euh, du département de Kanel, toute la population de la région de Matam ci accueil bi nga xam ne accueil bu baax la bu am chaleur la bi nga xam ne président de la République et président de la République bu ñu ko accueillir fii ci Fouta je pense que mooy yoon. parce que président de la république aussi fii la cosaanu ku nekk ci ñun ñu dëkk dakaar ñi dëkk Fongolemi ñu dëkk feneen ak feneen eh, ñu dëkk Touba ñu dëkk am na foo cosaanoo ku nekk am na foo cosaanoo am na foo gane say aduna wala say wayjur wala si ñi nga xam ne ñoom ñooy say wayjur yu yu njëkk yi fu ñu gane say aduna donc président de la république ci dëkkam la ñëw moo tax démb ñu teertu ko teertu bu rafet tertu bu am solo euh, et j'en profite pour féliciter tout le monde moi je milite à Mbao je ne milite pas à Orkadiéré moi je milite à Mbao je milite dans le département de Pikine et au passage je salue tous les responsables de Mbao et tous les responsables du département de Pikine di leen jaajëfal di leen wax ne am naa mbégte mbégte bu baax a baax parce que euh, yàlla may na ma chance ma mun a teertu président Pikine ma mun ko teertu fii dans le Fouta fi nga xam ne fii laa cosaanoo mairie Orkadiéré euh, munuma euh, ci wax buñ ci tolloo dinañ ci wax parce que man munuma nekk maire or et je ne suis pas candidat à la mairie de Orkadiéré je ne peux pas être candidat à la mairie de Orkadiéré waaye euh, su fekkente ne gestion mairie Orkadiéré jaarul yoon population yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñoom ñooy tànnal seen bopp seen njiit ñoom ñoom munuma ci munuma ci àddu parce que population yi ñoom ko gën a xam waaye population yi su fekkente ne ñoom ñoo jël décision ne li nga xam ne moo fi li fi nekk baaxul euh, ñoom ñoo ku nekk yaay yaay yaay yaay mbéjum kanam mbejum kanam borom moo koy fajal boppam xam ngeen ni euh, fas bokk na ci euh, mala yu gën a Euh, noble et c'est au nom de cette noblesse euh, bi nga xam ne euh, moo ci au nom de la noblesse de la lignée bi nga xam ne mooy lignée des lames fi nga xam ne foofu la président soqe ko lañ ko jagleel le cheval le plus noble l'animal euh, le plus noble ñu jagleel ko pour lu dire merci merci pour tout ce qu'il a fait Euh, pour la région de Matam. Merci pour tout ce qu'il a fait pour le Fouta, mais également merci pour tout ce qu'il a fait pour Orkadiéré. looloo waral bu ñu amoon lu gën a euh, rëy loolu dinañ ko defal président de la République parce que euh, bu dee dañuy waxal yàlla président de la République jàppale na Fouta jàppale na Foutanké yi Ma candidature à Mbao est une candidature évidente. C'est une candidature évidente parce que la demande des populations de Mbao. Depuis que nous avons l'élection 2014, je suis sur le terrain de li may wax je dis, Mbao mun nañ ma Moi, man président de la République, mooy sama njiit président de la République, mooy sama lider je veux que la mairie de Mbao nekk ci loxo yi nga xam ne ñu ànd ak président te mu nekk dëgg ci ñoom ñi juddoogul sax xam nañ ne man je suis candidat à la mairie de Mbao parce que euh, comme ni ma koy waxee mairie de Mbao mairie 2G la dama bëgg mu nekk mairie 5G mairie 2G boo xam ne vraiment lu dul lu président def foofu amu fa. nan nga jàngatee gestion de la commune de Mbao. non mënu ma ci sori pour l'instant parce que euh, c'est une gestion calamiteuse et catastrophique le maire n'a pas de vision le maire n'a pas d'ambition il n'a ni vision ni ambition pour la commune de Mbao kooku nag euh, comme ni ma koy waxee euh, c'est un maire par défaut. dafa d'ailleurs loolu gën na nekk loolu gën na nekk lu ko metti parce que moom dafa làqatu woon ci liste proportionnelle bi foofu la làqatu woon yàlla def xam ngeen nii après les élections euh, dafay am des combines et des combinaisons à travers des combines et des combinaisons il s'est faufilé pour devenir le maire de Mbao donc c'est un maire par défaut euh, Mbao nag franchement soxla nañu lu ëpp loolu bu ñu ci eggee dinañ ci wax am nañu lu bëri lu ñu war a wax mais pour l'instant c'est pas le moment parce que euh, am na ay affaires yoo xam ne euh, population yi ñoom ñoo ko di ñoom ñoo décider seen bopp bu dee dëgg dëgg dëgg dëgg da ngay liggéeyal président da ngay xool fi le président xooloo et j'insiste là-dessus képp koo xam ne président ngay liggéeyal fi président xooloo la ngay xool li président bëgg ngay bëgg ñaawteef weesuwul président la république dajale département de Kanel yëpp yow ngay leader nga ne responsable nga ngay ruux ay xale pour ñu yuuxoo ay maire loolu yaakaar naa ne bases weesuwul loolu maa ngi maa ngi koy maa ngi koy ñaawlu non Me Malick Sall n'est pas dans ces dispositifs non suivez mon regard vous pouvez suivre du ma citer kenn mais ma maître Malick Sall c'est un soldat du président de la République te loolu Sénégal yëpp xam nañ ko maître Malick Sall mënul nekk ci affaire yooyu ñi si nekk waa Kanel xam nañ leen waa or Orkadiéré xam nañ leen waa euh, de euh, Matam xam nañ leen mais nag il faut qu'il chasse raison gardée kilifa du toog ba pare nga yebal ay gune di leen wax ne bu diw waxee na ngeen yuuxu loolu yaakaar naa ne du cër du kilifteef du responsabilité du respect sama mot de la fin mooy euh, président la République Macky Sall nekk na le président de l'équité territoriale le président de l'équité sociale fàtte naa sax am na ay chef de village yoo xam ne jël na décision ci conseil bi nga xam ne conseil présidentiel bi amoon Matam mm, jagleel leen indemnité xam nga loolu équité la équité nag ak égalité du benn équité mooy képp koo xam ne war nga am euh, euh, war nga war nañ la jox li nga xam ne moom nga yellool ñu jox la ko waaye euh, munoo wax il faut mu am aéroport international bi mel ni bi nekk Blaise jaañ mu am or kajare mënul nekk parce que loolu mooy li nga xam ne def nga lii fii def nga lii fële mooy égalité mais équité mooy waa or kajare dañuy soxla ndox su ñëlee amee euh, lu mel ni aéroport Léopold Sédar Senghor lu mel ni yeneen infrastructure au moins ñi nga xam ne dañoo soxla ndox dañoo soxla goudron dañoo soxla euh, ñu may leen nu ñu bayee nga jox leen boo la joxee ñëlee nga jox leen loolu mooy équité lool lay président de la république doxal ci réew mi réew mi c'est le Sénégal de tous Sénégal pour tous loolu mooy slogan boo xam ne un slogan plein de sens boo xam ne président de la république nekk na euh, li nga xam ne moom la téye bi mu jëlee réew mi ba léegi et incha allah loolu lay continuer di téye Sénégal ak sénégalais yëpp ñoo yem ci moom